bismillah soxna soxna ma xadi bismillah ñu déglu nga tàggoo waaw macha allah di di jaajëfal yéen ñu doon déglu yëpp di leen ñaanal jàmm sàkku si yéen am na solo trop yàlla yàlla fay leen di wax ne démb ak tey ñu ngi fii nii toog di leen laajte dalil si anniversaire bi ñuy fettal yonent bi chaque année ba léegi nii kenn si ñoom mënta indi benn dalil boo xamante ne nii mën nañ cee sukkandiku ne kat ah ñi kat anniversaire bi ñuy féete bo démé ci alcorane bërëb sangam di nga ko fa fekk wala bo démé ci sunna yonent bi bërëb sàngam di nga ko fa fekk donc amul alhamdulilah di wax né alcorane ak sunna dina tassaro Sénégal tiaxan yi dina fa juggé bi iznillah ndax gis nañ fi Égypte antique mo gënon graw taraxe yi fouf tay ji histoire la wa donc mbir firiwul né yag na rek dëgg la déedéet iblis yag na lool mais ci ay tiaxan képp la té da fay yag nak ba ila yowm yubu ansul waaye terewut ne lu mu nekk doonu dëgg donc tarixa yii du dëgg lii di dëgg mooy alxuraan bi fi yonent bi bàyyi ak sunnaam bi mu fi bàyyi loolu mooy dëgg loolu la doomu aadama bi war a topp sunna yonent bi mode de la sunna yonent bi mode de vie maam diw non non mode la boo xamante ne jullit bi yow da nga ko war a adopté mode de vie la boo xamante nii sa wàllu jaamu yàlla moom yonent bi nga ko war a royee parce que jaamu yàlla bi ngay def boo ko royewul yonent bi yàlla da koy rejeté du ko jël sinon yow boo jaamoo yàlla à ta façon wala nga à la façon de Baye à la façon de l'imam wala n'importe quel sëriñ yàlla du ko jël wala su ko jëlee dafay def contradiction parce que moom yonent bi la yónni mhm. donc moom li mu war a valider dafa war a fekk mu jóge ci yonent bi alayhi wa sallam boo créé sa diine bu bees ci jaamu yàlla yàlla du ko jël rejeté kon nañu moytu di wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax diine l'islam du ay foo yow mal xiyaam dafay sax àdduna ay de la rek daf fiy jóge de dafay bu nangu mukk sa diine nga koy jëlee n'importe où di foowe sa diine ba ba dee bi ne bëreet sa kanam nga dekki yow man xiyaam sa kanamu borom bi nan ko non c'est que c'est-à-dire xaw ma woon dama foogoon ne mag ñu baax ñii ba nga leen defaloon jagle dugg na fi yàlla du la déglu su boobaa parce yàlla lu muy wax leer na nañ lettre bu mu ñu yónnee muy alquran lépp lu mu ñu ci waroon xamal moom borom bi subhanahu wa taala xamal nañu ko yonent bi sallallahu alayhi wa bàyyiwul dara jàngale na lépp ba mu leer nañ kon nañu topp li mu jàngale moom ñu moytu wuuteeg moom moytu tarixa yi te xam ne tarixa yi yëpp nag tarixa yëpp ay yoon la yoo xamante ne safara lay jëmee boroom bi yoon la yoo xamante ne dañ ko décorer ak yoonu aljana rek yow doo comprendre boo eggee di euh, boo eggee à destination ci ngay xam ne nekk man yoon bi ma nekkoon yoonu safara la waliyaasu billaa yàlla na yàlla musal ñu si dem ba yowmal xiyaam door a comprendre nekk te ñun ñi la ñu toppoon du woon lu ñu waroon topp loolu musiba la parce que rëccu la boo xamante ne nii du am njëriñ xam nga fii ci àdduna loo mën loo mës rëccu rek mën nga ko réparer fii ci àdduna boo rëccoo boo rëccoo benn mbir mbir bu mën mënti doon mën nga koo defaraat mais yow mal xiyaam loo fa xas boo rëccu perte nga ko a mënatoo ko réparer yàlla du la delloo si waat fii ci àdduna pour nga recommencer waat à zéro naan da nga koy jaamu noonoo kon bàyyi xel bu baax a baax a baax ci sa diine bul nangu mukk ñu nax la si sénégalais bi nag moom pare na xolol pour manam senegal bi moom lépp loo ko mënti nax duko nangou ci walu medicine ci walu jang ci lu mu mënti doon du ko mais diine mom bokay nax day xam sax dang kay nax mais dalay bàyyi dana na li budé ay nax sa grawul dañ ko fi dégg señ bi budé dee lum ñuy woo ay nax la sax bëgg nañ tëye leen seen safara tëye leen seen aljana li ñu señ bi di wo bëgg nañ mais lolu musiba la safara nga nar fa sax abadan lolu musiba la donc ñun li ñi def amuñu ci ben intérêt ngir yàlla yeewu leen ngeen topp alxuraanu yàlla bi ak sunna bi fi yonente bi bàyyi sallallahu alayhi wa sallam lii mooy tax ñu texe àdduna ak àllaaxira asalaamaaleykum wa rahmatullah yàlla yàlla fay yiw waay macha allah yàlla na yàlla suñu borom subhanahu wa taala